am na Mame Boye Diao wax nan ci bi tàmbali ci euh, plénière bi. Mm-hmm. maa ngi remercier aussi vraiment bu baax fii euh, ay kilifa. yoo xamante ni bi problème bi amee jóg nañ dem seet ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo amul problème yi. Mm-hmm. ñëw seet si ma man mi nga xam ne man maa bokk ci commission bi yor mbirum suuf si. Mm-hmm. dem seeti Mame Boye Diao mi ko yore. ku si ku si mel ni euh, Mohamed Massali Massali bu dëkk cees moom maa ngi koy remercier si loolu dox na si. kon. loolu bu ma amee ba ma ko waxee président de la république si boppam wax na si ak man wax si ak ak daa Abdoulaye Daouda jàlloo mbir mi ñoom ñu ngi koy réglé boo xasee wax plénière ba pare ba assemblée nationale dégg li muy dégg wax li muy wax li des mooy responsable état moo war a jël ay responsable la ma war a wax naa ko maam booy jaaw sequñu lenn lu du jàmm. est la ñuy xaar ci yow. li am solo mooy. li ñuy xaax ci yow. am na am na am na lu ma santoon si askan bi santoon na ko. wax naa ko. yi du ma waat même chose loo xamante ne waxoon naa ko pare. askan wi ndax li tax mooy am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñi ngi si ñi ngi si ñi dox nañ si jàmm comme ni ma la ko wax noonu. sama diggante mu amul lenn loo xamante ne lu si am la lu dul man damay loolu sama liggéey waral yor nekk député naa di liggéey sama liggéey la war a wax wax naa ko si pencum ndaw réew mi la ñu war a def nag pencum ndaw réew moo ko war a def bu bëggee mu leer. ñoo la yónnee pour nga wax Mame booy jaawoo li nga ko wax jëm ci ne suuf si daf koy may ay mbër di ko may ay jigéen ñoo xam ne daanaka ñoom ñoo moom seen bopp def leen neex kàddu gi nañu ko tudd fii donc ça veut dire que assemblée nationale la gën a ñaawee sax pour ñu tudd ko fa. ñooñu ay sénégalais lan am nañ si droit voilà. te bi bokk na ci Euh, oto boo xamante ne danga nga ko ko doon jox pour que ngeen weccoo ko ak ñetti terrain yoo xam ne say terrain la yow euh, mu bañ loolu moo indi accusation ak dal bi nga dal ci kawam. lan ngay tontu ci loolu yooyu wax ju jàll la licence que man maa ëpp loolu. <laughs> man oto yi may dawal jàpp naa ni ñoom amuñu ko sax. Hmm. li am solo mooy sama daraja ak sama dayoo. mayuma may taxawaat fii di rapporter même la ma war a wax naa ko plénière affaire bi jeex na masali dox na si tànk jàmm moom tamit rapporter na mi ngi liggéey ministre bi si boppam wax na li mu war a wax président de la république woo na ma woo na Abdoulaye Daouda Diallo nee ko nan rek le problème boobu ndax man bu ma koy wax waa Tobago ñoo tax may wax hmm. ak ñi nga xam ay canal 169 terres yi nga xamante ni tey ay nit ñoo ko moomoon i hmm. terrain Tobago gi ñu toj seen i kër ba tey mun ñoo am si doyuma si dara fi ma dëkk doy na ma. soxla lu ma lenn état loo xamante ni population bi soxla na ko.